bañ ñëwee dañu toste ñu yore suñu jur ba tabaski jot ñu war ci gis suñu bopp du ñu gis suñu bopp parce que ñu jaay ñoom ñooy indi xar yi indi fii ñu jaay ba njëkk nun duñu jaay. est-ce que jàpp ñu ni ñoom li ñu yor xëy na bu ñu ñëwee boole koog yéen li ngeen yor dina tax Sénégal yi tabaski parce que yéen amu leen mën leen mën leen rabitaay Sénégal yéen. Sénégal li fi ne mën mën mën na rabitaay Sénégal. li fi ne ci xar mën na rabitaay Sénégal dañu xooloon dañu war a xool bu fekkee dañu war a dimbale waa réew mi dañu war a xool li limite ak Sénégal ak li Sénégal am ñu méngoo ñu mun ko indi ñu mun ñu ñëpp mën a gis seen moom nañu njëm ji réew mi jox leen ay millions yu dul jeex ñu du ñu jënd Sénégal du jënd dara dem fale jënd kuppa bagage yi ci sunu kaw kenn du jaay kar yi lu ñoom ñooy indi kar yi baax na parce que mun nga gis kar boo mën a jënd jënd ko man rek bu ma yoree kar léegi dama ko seeral du ma fenn ñëw bi baax na parce que bu ñëwee ku amul dool dana si wax nañ ko keroog gis naa ko suma suma rakk mu ngi wax Aliou Dembélé la Samba Aliou Dembélé la saw xam naa ko moom si éleveur yi la bokk mu ngi si rajo fii xam naa ko e, Samba Ndiobène wax na ko mu ne man Paul laa mais bu ñu yëpp bu ñu waxi xar yi buñ ñëw bu xar yi ñëwul dara du baax duñ leen laaj euh, fere duñ leen laaj euh, patane duñ leen laaj dara duñ duñ juuti duñ def dara jaay ba pare takk seen xaalis bi ñibbi seen yoon. mel na ni ku xàddi laa jàkkaarloo koo xamante ni amatul yaakaar. waaw amatul amatuñu yaakaar noonu. ñun mhm. suñu lépp defa taxaw parce que jur lañu am ñun amuñ lu dul jur. sàmm ak mbéy rek lañu am at yi yëpp gis nga mbéy mbéy bi doxul sàmm bi moo nee sàmm bi dañ ci sonn parce que sàmm bi ak ñañax amut.